defe naa ne lu mel nii rek laa bëggoon kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan rek yàlla nañu ci yàlla defal ndam ba lépp lu ñu li ñu ko sumbee mu àgge noonu waaye nag mu amoon bu fekkoon ne di remercier bu baax directeur ndax bi ma koy def lu mel nii laa bëggoon commune munul moom rek munul assainissement munu ci lu munu ci lu bari état mi ngi ciy def li man munul lépp mais euh, acteurs yi nga xam ne ay partenaires lañ comme Touba ci kanam ak ñeneen ñi ngi ci kenn ku nekk dafa am loo man mais ñun ñëpp bu ñu dajee def nii am def benn collaboration kenn ko ne boro xam ñi am xam-xam génne ko ñi am baat yëkkati ko ñi am dara moyen def ci yaakaar naa ne buñ ko defee bu ñu àndee dana doon dara loolu rek laa laa laa bëggoon.